అవుతాయి waaw sant nañu baax. waaw baal nañu ñu ngi lay jëriñ. yaa ngi jëf baal nañu ak waa. nañ la baal ñëw. dëgg yàlla. waaw. defoon nañ ko daaw bëri émotion quoi xam nga. you know defoon nañ ko daaw. comme comme comme du naan nga léegi waaw. nañ jàpp deux secondes rek te bu ko yëpp. vous avez cinq minutes incha allah rabbi benn problème dañuy rajo xarit kër cinq minutes. waaw ñëw ñëw ñëw dialaba. C'est pas mieux? Vas-y, tu as salué ton ami. Vas-y, va mettre ton dialaba. Je suis là. Asus. Ana Asus. Waaw ana xarit. Ah.

xaaral ni ngay wàcce mais xaaral ba ma ne wuy ma ma yor xaaral doo koy yóbbu doo koy yóbbu ñuy defal buy teg rek nga dégg Ahí va, ahí va. Vamos,

suuf sooy joxe. dama wàcc xar yi gannaaw waaw. sant kay. waaw sant bu baax. waaw baal nañ la ñu bëri yaa ngeen jëf baal nañ la wax waaye. nañ la baal ñu nañ yaaral. ah. xaaral ma xaaral ma non non xaaral ma jokko ci moom kaay waaye da ngeen maa ngi topp nii. waaw ñun loolu ah. non maanaam ñun nag fii day fii tey. defoon nañ ko daaw bëri émotion quoi xam nga. mar eh, defoon nañ ko daaw. ah comme comme comme dund nañ ko léegi waaw. waaw nañ jëlaat deux secondes rek bu kii yëpp. vous avez cinq minutes. incha allah waaw waaw. Salima ou bien porter ton djellaba C'est pas mieux Vas-y, tu as salué ton ami. Vas-y, va mettre ton djellaba, que tu l'as. Asus Asus Asus

waaw ba ma ne muy ma maa yor maa ngi doon koy nëbbi doon koy nëbbi ñuy nëbbi Thank you. Ayo, ayo.

santul kay waaw sant bu baax dañ la baal ñu dañ ñaaral ana Mohamed ana Aliou non non xaaral ma jëkk ci moom kaay kaay waaye da ngeen maa ngi topp nii. waaw loolu ah non baax na noonu rek et puis day fii tey. defoon nañ ko daaw bëri émotion quoi am nga. mar defoon nañ ko daaw. ah comme comme comme du naan nañ ko léegi waaw. nañ jëlaat deux secondes bi rek te bokk yëpp. vous avez cinq minutes. incha allah rabi moom ngeen toll. dañu rajo Fatick. cinq minutes. waaw ñëw ñëw ñëw et porter ton djellaba. C'est pas mieux? Vas-y, tu as salué ton ami. Vas-y, va mettre ton djellaba et tu danses. Asus. Asus.